day fanale so magal sure que nga nekk en en état régulier magal sure que nga fi nga nekk tu es légal tu as tes papiers tu as tout léegi nag li ci des moom it's sa combat you know sa tes mots contre leur mot rek la te anyway surtout loo xam ne ñun <laughs> gars yi pare nañu bu yàgg ba pare loo xam ni kenn du ko euh, lu ne fang la loo xam ne kenn mënatu koo jeex gis nañ seen i actes yi ngeen di jàpp nit ñi di rey ba pare les américains so ba pare am na lu fi jot a xew jarul ñu si sori sax du débat du débat am na loo xam jot na fee xew kaaw Assane Diouf you know l'état Sénégal l'a taxé de terroriste ñu jàpp ko yóbbu xam ne li ñuy wax du dëgg ba actuellement ils sont ils ont perdu leur crédi leur crédibilité amatuñu benn crédibilité fi mu ne nii te li ñuy wax ni di ko fawee dina dem ba suba xale yi bu ñu bëggee amatee visa dañ naan mais suba loolu dina affecté xale yi bu ñu deful très attention mais am na loo xam ne moom du débat sax du débat am ñu amatuñu benn crédibilité you ba pare les américains sont plus renseignés xam nañu Sénégal mooy loolu ba pare yow surtout gis dañ lañuy ay Sénégal ay xeer la ñu yor amul arme so li ñuy wax ni c'est faux c'est archi faux Ousmane Tounkara il ne représente aucune menace you know you know c'est que xeex la nag understand lu ñu mën a def pour déstabiliser la mais tamit ñun tamit les activistes foog ñu nangoo comprendre loolu que ni guerre la de manière yëpp comprendre loolu que ñi xeex nga nekk il va falloir que nga protéger sa bopp booy voyager te nga xool say bagage nga xool fi ngay lekkee ak foo mën mënti nekk nguur dafa am doole mën nañ la atteindre mën nañ la sax posone mën nañ la booleeg jigéen lépp mën na cee nekk toutes les mën ngay di dox ci mbedd mi sax oto yanu la you know il va falloir que nga protéger wu military science am na ay secret yoo xam ne yow let me tell you this this is serious this <laughs> looy wax lu ne ça peut retourner temps moo tax booy wax xoolal bu baax li ngay wax you know mais anyway ñoom amatuñu crédibilité boo xam ne mën nañu tëjlu kenn you know you know mais mais woorewuñu am na yoo xam ne jarul wax jarul wax ils ont peur ils ont peur du dara lu dul loolu parce que Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne dañu signé ay convention you sur les droits de l'homme léegi nag ces droits de l'homme là bu ñu gisee que ni Sénégal respecté wul loolu policiers yi ñu ngi def à tir tendu sur des manifestants hey ça ça va jouer sur eux moo tax boo leen gisee ñu wëlbatiku daw naan ce sont des terroristes ce sont des bandits ce sont des forces occultes forces occultes du dara lu dul loolu il faut que tamit ñun ñu nangu utiliser suñu xel du dara lu dul loolu ndax Sénégal lépp lu mu am la France moo koy dimbali les États-Unis les les les Nations Unies yee peut la la CEDEAO patati patata ñooñu ñoo koy dimbali mais ñooñu bu ñu gisee ni Sénégal respecté wul loolu liñ leen di dimbali dañ leen dañ koy téye you know ak yeneen ak yeneen yoo xam ni ñoom tamit ils vont se ils ils vont se nga xam ne bu ñu reyee Sénégalais yi dañ naan ce sont des forces occultes moo tax ñuy njëkkante léegi nag njëkkante boobu manipulation boobu sur l'opinion internationale ñun dañ leen cee jiitu ñun dañ leen cee jiitu bu yàgg leen cee jiitu bu yàgg yàgg yàgg loolu tax li ñu bëggoon a def fi mu ne nii mënatuñ ko mënatuñ ko mënatuñ ci dara fi mu nii dañ leen cee jiitu you know lépp lu doon pétition ñun signé nañu ko lépp lu doon dem ci télé yi ñun dañ koy def lépp lu doon loo xam ne dafay nekk propagande manipulation positive you know et manipulation négative you know contre eux ñun dañ koy def def nañ ko bu yàgg dañ leen cee jiitu you know loolu nag moo leen metti moo tax actuellement nii ñun dañuy dañuy target mais you know comprendre nañ lépp gis nañ bool yi bool yi ngeen ñuy yàqal ñu ngi koy jot you know boo tijjee bool bi dafay nekk boolu mënaas bool bi dafay nekk boolu mystique bu yàgg a yàgg yàgg rek laa wax bu yàgg <laughs> léegi cette peur là ci beneen camp bi la gën a nekk ñoom ñoo ragal actuellement ni parce que ñun ñoo nekk en en position de force noomu maadawat ñun ñoo nekk en position de force parce que ñoom dañoo def ay erreur c'est qui tandi you know ñoom ñi ngi euh, euh, la police mi ngi tiire sans des sommations am na ay erreur yu bëree bëree bëri bëri bëri bëri yoo xam ne dañ ko def te waruñu ko woon def du ñu dugg ci yenn détails yi parce que ñoom jaraluñu ñu ñuy ñuy ñun ñuy perturber notre hiérarchie jaralul ñu ñuy perturber ñuy ñuy ñu ñu ñuy perturber suñu suñuy institution jaralul ñu ko quoi on va pas perturber donc am na ay yu bëri yoo xam ne buñ def nañu ko am na ay yu bëri yoo xam ne def nañ ko te Sénégal dafa signé woon ci ces comités des droits de l'homme que ni du def yooyu ces actes là so on va tout retourner contre